docteur Malick Badiane ñu ngi lay nuyu. bonjour ngi ci jàmm yow yaay secrétaire administratif bu SAMES di syndicat autonome de médecins du Sénégal euh, gannaaw ñaari fan yi ngeen sumban ci grève ba mu jeexee ngeen tollanti ne bi la yoon ñetti fan yéen a ngi wax li waral kon bi la xeex mooy kon fexe ba daa di aar li nga xamante ne moom mooy dignité euh, profession bi maanaam liggéey kon paj ci Sénégal lan ngeen bëgg a wax foofu. li ñu li bëgg a wax mooy dañu dañu remarqué donc encore une fois maa ngi lay maa ngi lay nuyu di la sant aussi ci opportunité occasion bi moom mooy pour mën waxtaan ak sa auditeurs yi mhm. ci situation bi nga xam ne moom moo fa actuellement au niveau du Covid nga xam ne laal na si Sénégal yëpp parce que grève bi aussi il faut le dire nañ ko wax Sénégal yëpp la laal mhm. comme ni nga ni nga ko waxee dañoo seetlu ci ci weer yi wala at yi mujj que mhm. vraiment médecins yi euh, agent de santé agent de santé du manière générale mais médecins yi encore une fois en donc dañuy am euh, ay gàllankoor yi nga xam ni justice da lañ koy teg wala euh, wala journaliste teg nañ ko parce que à chaque fois problème bi nga xam ne am na sans que nit ñi xam vraiment lu ci xew dañuy jël bëgg généraliser d' abord euh, agent de santé yëpp def nañ ci benn benn benn paan yàq leen lu mel ne xel te aussi pour un tout pour un rien di ñuy wax naan li ñuy wax naan nit dans un pays normal les nit ñi hôpital la ñu war décédé donc ku xëy suba di dem hôpital dangay ngay xëy suba dem hôpital parce que da am gàllankoor say dem bi nga xam ne ni moom la ñëw moom la nit ñi seen pour moom la pour pour pour fay leen maintenant nag ñun amuñu amuñu obligation doo dem ci médecin bi ni ko da ko da nga may garanti bi moo lay muy def da def ci li nga xam ne jàngam loolu la wax scientifiquement science aussi loolu mais norme protocole yi nga xam ne état Sénégal Sénégal nangu na ko si loolu lay def donc loolu lay def mais par rapport à Russie amu ci benn amu ci moom benn benn garantie. Hmm. donc analyse tamit buy nelawal malade na malade bi par rapport li nga xam ni moom la ñu nangu mais dana yeewu moom kooku moom ci ci ci dépendre ci moom moom li nga xam ne li ñuy def yëpp daal da koy teg ci yoon li nga xam ne scientifiquement nangu nañ ko te aussi état du Sénégal nangu nangul nangul na ko donc naa bu ñu demee nag ba lépp nit ki ci fu nit décédé ci hôpital rek. nit ñi moom dañuy jàpp ni médecin moo ko rey noonu la ñuy jàpp médecin nag formé wuñ ko pour mu rey médecin te mu liggéey pour rey médecin aussi du dugg bloc du faj malade pour rey donc il faut que nit ñi comprendre ko xam ne médecin faj lay def mais faj aussi médecin amu ci garantie ci ci résultat bi donc képp kuy dem ci médecin ni ko da nga may faj boo ma garanti résultat damay dem yaakaar naa ne médecin danaa la jëlaat sa bagage nga def parce que du loolu loolu la du loolu la ñuy loolu la ñuy ñox dañu bëgg médecin bu li ñuy def ñu teg ko ci yoon mais nit ñi aussi ñu nangu ni issue malade bi malade bi fi ñu loolu moom Euh, médecin da ci def kenn tulaay kàttan mais nekkul nekkul ci ci loxo. lu muy garanti waaw waaw ci coowal nag euh, Fatou Mamadou Diallo ak euh, doom ja gis nga ñu ni ñett ñi nga xamante ne daanaka ñoom lañ ci jamono baaraam tuuma muy gynécologue bi infirmier bi ak anesthésiste bi ñoom ñëpp mujj na leen bàyyi bàyyi négandi ko donte dañoo ngàll ci seen ndodd li ñu duppee contrôle judiciaire ndax loolu rek jéego boobu mënuloon tax ngeen bàyyi xeex bi delluwaat ci seen i poste. ñun par rapport ak situation Kédougou li nga xam ne moom lañ ciy xaar mooy ñu bàyyi camarade bi moo ñu bàyyi suñu collègue ay turam ñëpp ñu dem seen kër dox seen liggéey seen liggéey comme ni ko waree pour une raison simple ndaxte ci li bi ñu xoolee ci récit malade bi xool ci dossier malade bi xool ci autopsie bi xool ci euh, audit bi nga xam ne ministère de la santé def na ko malade bi amul lenn lenn euh, parti comment dirais-je euh, bi ak équipe amul lenn li nga xam ne moom la ñuy reproché amu te encore une fois communiqué bi nga xam ne moom lañu gis procureur def ko hmm. li nga xam ne daf ko ci bind amul lenn li nga xam ne am na ci fruit imagination bi amul lenn li nga xam ne nekk na à rapport avec je pense que dégg ngeen suñu collègue euh, suñu collègue bi di ko di ko expliqué hmm. ab responsable sànq sànq aussi ñu génne aussi ñu par rapport ak heure li nga xam ne méngoo na ak li nga xam ne moom moo nekk ci dossier bi agressif ak ak ak agressif donc maintenant aussi bu ñu demee te boo xoolee communiqué procureur yi d'ailleurs nag ñaari communiqué ñooy génn bii homicide volontaire lañ gis bii na ne ñun dem hôpital yéen da mooy gis bu dugg ci bloc opératoire def fa ñetti waxtu pour génn ñu ni ko da nga doon malade bi da jàppoon da koy rek parce que loolu mooy homicide volontaire wala bi nga nekkee bloc benn instant da nga jàpp ne da ngay rey malade parce que loolu la ñu accusé malade bi que ni moo rey nit ki tay mooy homicide volontaire te loolu yaakaar na ne amul lu mu méngool ak li nga xam ne ba ci lenn lu dul justice jël responsabilité am bàyyi dem liggéey seen liggéey xam moom la ñu war moom la ñu ci diggante bi argument yooyu tamit ndaxam baaxutoon ngeen jëfandikoo ci wàllub yoon ba li ngeen di sàkku mooy naanaam ñu nee na lépp li ñu leen di toppee euh, ñu daal di koy def ndax yéen jël ngeen yeneen matukaay ci wàllub yoon lu mooy grève bi. non man grève bi xee ni wax naan boo xeex dara moom danga jël lépp li nga xam ne mooy li ñu wax rek ñun je pense tamit koo xam xam ne lépp lu mu def da yoon daf ko may li ñu yoon may grève bi noonu lañu yoon may aussi ñu wut ay avocat pour suñu collègue te loolu je pense que def nañ ko def seen liggéey mais ñun aussi li nga xam ne moom war ñu koy def xam a jax pour mu dugg def liggéeyam li nga xam ne te yàlla xam na ni kër ñëpp liggéey xam na ni médecin bi la loolu li nga xam ne moom la yoon moom moom moom la xel war mën nangu parce que benn médecin la pour toutes ces régions là avec difficultés yi nga xam ne yëpp am nañ ko ñu def kéemtulaay kàttan pour loolu maintenant nag bu defee kéemtulaay kàttan ñëw ci li nga xam ni ci na amul lenn li nga xam ni ci ci ci ci tayeefam la te lépp li mu def teg na ko fi nga xam ne fa la ko war teg amul kenn ku war nangu kenn tourné pour ñëw di accuser dara ba pare ci gàllankoor. Hmm. parce que sànq yow hmm. nga bi bu lay contrôlé da ngay dem di signer consort te loolu bu ñuy def condamnation la te condamnation weesuwul ñu accuser la dara li nga xam ne non seulement defuloo ko mais ñu ñëw teg ci li nga xam ne mën na def ay atiwaat wala ay weer weer yi nga xam ne chaque jour wala chaque weer ñu rappelé la ko nga dem di signé consor hmm. loolu nga xam ne ñu mënul nangu la lañ koy wax encore une fois bañu juste nous sommes justiciables comme tout le monde ñëpp ñëpp ñuy dem bu ñu amee problème dañoo war yóbbu justice comme tout le mais nañ ko teg ci li nga xam ne moom moo wax mais mënuñu nangu nag ab procureur génn te loolu moom li ñuy wax doy na waar loolu parce que loolu ñu am problème bu nekk ministère de la santé mosuñu am problème bu demee ni bi nga xam ni procureur day bind li nga xam ne amul fenn fu mu ko teg loolu imagination kërti la ci xalaatam bi nga xam ne kenn xamul fu mu ko fu ko jëlee ak euh, topp émotion bi nga xam ne li mu wax amul lenn li nga xam ne ñun gis nañ ko ci wala am na ci. Mm-hmm. mais euh, lu jëm ci solidarité de corps bi parce que tamit seen naataango la ñu tuumal yéen ñëpp ngeen jóg. mais ndax nangu ko tamit ni ni mu amee ci feneen ak feneen am na ci wàllum paj mi ñi nga xamante ne xëy na seen liggéey duñu ko def nu mu waree wala ñu topp li nga xamante ne moom la ci yoon wax. ah mais sëñ bi euh, ñiy faj fi ñu jógee jóge wuñ ci biir dëkk journaliste yi tey yow yow miy journaliste boo xoolee ba xool gis nga ñi nga xam ne journaliste yi def teguñu ko teguñu ko ci yoon. Mhm. donc kenn neewul amul ay médecin wala daan ñi xam ni teguñu ci dana am. corps mhm. boo gis dana am li nga xam ni ñi nga xam ne ko ci yoon. muy benn maintenant léegi wax ji mooy ñi nga xam ne teguñu ko ci yoon bu ñu leen def nan lañ koy def est-ce que tey jii nit di dugg malade rek tey jii ñun nañu nangu ni procureur amul capacité pour mën def expertise médicale du bis mu nekk bis bu yàlla sàkk ay juge ay procureur ay gendarme wala dara ñu ngi retirer ay avis des médecins avis médecin wala avis de santé pour ay situation yi nga xam ne noon la noonu la demee mm-hmm. donc loolu du problème maintenant wax ji mooy que ni nit boo koy accusé dafa am foo koy teg fi nga xam ni day tegu ci dara mais tey jii nii ñun dañuy gêné dañuy gêné loolu ñu gis benn communiqué procureur bi nga xam ni ko procureur da ciy wax d'abord accusation bi nga xam ni kenn xamul accusation lu mu doon ndax aussi politique wala tey ci médecin beneen affaire la donc hmm. benn deuxième chose aussi récit événement yi chronologie ça n'a absolument rien à voir li nga xam ne moom moo moom moo am parce que il faut le dire li ci li ci procureur bi kenn xamul fu mu ko jëlee mais imagination bi kese la te nit nag mënu ko condamné ci ab imagination wala say émotion wala sa jaay doon loolu moom warul nekk ci dëkk bi nga xam ne dëkk de droit la te jàpp na Sénégal éducation secondaire li dal ci suñu collègue docteur Faye mën na dal ci ku nekk ñu ñuy liggéey bu ñu bàyyee loolu jàll ñun ñëpp dañu nekk ba suñu doon loolu yaakaar naa loolu arrangé wu ñun parce que nit mënoo liggéey liggéey bi nga xam ne boo defee lépp nga xam ne moom la ñu ne kilifa état mooy kilifa ñëpp état bi mooy accès ci politique norme et protocole yi nga xam ne moom la ñuy teg ci dëkk bi dañ koy respecté ko ñu koy suba bi ko accusé homicide volontaire wala involontaire kooku du li nga xam ne ñun en xalaatuñ ko nangu te duñ ko mos a nangu. Hmm. léegi nga xam ne moom moo ci war ci le plan te mu te mu nekk nga xam ne yoon may na ko. dañ ci mhm. moo tax ngeen di sàkku nag ñu samp dispositif réglementaire bi nga xamante ne dina may maanaam consultation diggante ministère de la santé bi leen njaboote ak ordre des médecins du Sénégal laata sax ñuy amal ay audition wala bokk ñu koy yóbbu ci yoon. Euh, loolu ñu bëri njort ni xëy na da ngeen di sàkku benn xeetu privilège ci wàllub yoon maanaam lu mel ni mbar laanu kiir lay. non ku comprendre noonu comprendre noonu ñu demee. ça veut dire que nit mënoo ci loo xamul. nit je pense que tey jii nii peut-être néew ma amul mais yaakaaruma ni procureur maîtrisé na parce que mooy li nga wax naan bis mu nekk médecins c'est des gens c'est des gens avis ay ci yenn kii yu nga xam ne juge yi wala euh, procureurs yi wala gendarmerie yi wala police ñoo koy laaj donc dañ koy def maintenant nag dañuy bañ kaabu demee nii ñëwaat di gàllankoor encore santé santé santé population wala santé benn benn benn d'une manière d'une manière particulière parce que booy xool ba xool mooy procureur nga xam ne def na ko dafa xamul ko xamul jàpp nañ dama xamul ko xamul du ko def mais lii ku xam def lii li mu bind ku xam du ko def ku xamul moo koy def parce que li mu bind dafa war trop li nga xam ne moom moo nekk mbirum santé santé dafa nekk li nga xam ne c'est une du làmbaat science la du làmbaat donc pour nga xam ko aussi day fekk ciy liggéey nga ciy liggéey wala nga tàmm ko def wala nga jàng-jàng bu ko may donc un procureur mënul substituer benn expert médical di jox avis yi nga xam ne yow boo ko liiree sax dafa am kerse yi nga xam ne day dox day dox sa diggante ci li ngay par rapport ak li ngay li ngay liir loolu nag la ñuy bañal procureur yi wala mooy que ni tey jii nii ba ñuy condamné nañ ko teg ci nga xam ni day day day day tegu ci yoon tey jii nii tey moo li wax naan tey jii bu procureur bi bu xaaroon tey jii nii audit bi xaar euh, autopsie bi bu euh, jël benn extrait médical yaakaar na ni mu doxal tey du ko du ko doxalee donc nag lu demee ni moom la ñuy bañ rek parce que aussi lu normal moom kenn du ko nangu te lii moom bu fa amoon suba tamit ngi defaat dañuy def tey donc vraiment pour ne pas revenir nag situation bu demee chaque fois mm. moo tax ñu wax loolu mooy nit bala muy accuser médecin dara wala bala muy vaccin parce que mooy li mu wax lan c' est vrai que procureur day accuser du condamné. Mhm. mais tey nii tey bu ñu bàyyi woon tey procureur ci li mu jublu mu def nii fi nekkoon ne de te loolu mënta nekk dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. nañ ko def ci li nga xam ne mooy yoon ku ku tooñ teg la ci yoon mais bu lay teg ci yoon li nga xam ne na la teg ci yoon li nga xam ne aussi dafa jaar yoon hmm. mais bëgg nit nit jël nit teg ci yoon ba pare bu ko jaarale fi nga xam loolu nag yaakaar naa ni wareef la pour corporation bu nekk mu xeex loolu. Euh, léegi ñu gis nii ba ñu tegee loxo ñii rek daanaka lépp a gàllankoor foofu ci Kédougou muy fësalaat ni li ñuy wax ñàkk personnel rawatina ci gox-goxaat ni euh, lu dëggu la ndax loolu tamit warul nekk dëgg seen xeex léegi. non ñu bala may commencé damay wax ni moom ñeent fan yi en tout cas li xew Kédougou moom état bu responsable na xool le procureur Badiane il est le seul responsable. moom rek moo jël responsable moo jël responsabilité jël li nga xam dafa leen teg aay dafa leen mettre aux arrêts ci li n'a absolument amul lenn lu ci am donc bu population rek état bi bu ñuy xool ku responsable ñun ci duñ ci duñ ci duñ mu def fekk nga xam ne ñoom rek ñooy opéré ci zone boobu ci région boobu yëpp mu jël tëj leen ba nga xam ne ku soxla loolu da ngay deux cent kilomètres dem ba plus pour am li donc loolu moom du du médecin yi maintenant deuxième chose mooy ñun tamit yaakaar naa ni ñun nous sommes des collaborateurs nous sommes des conseillers de l' état de ministère chaque fois lépp li nga xam ne dañuy dañuy chaque six mois dañuy def ay conclave def dañuy wax suñu euh, suñu réunion seen pour génne ay réflexions yi nga xam ne dañ koy jox état bi pour améliorer améliorer la santé ci ci dëkk bi deuxième chose aussi li nga xam ne dañ koy def ministère ministère des fois day am soxla médecin ñu ñuy jël suñu ci convaincre suñu collègue te loolu je pense que bu ñuy wax ñun daañu ak ay sens lépp ba mu des di di administrer wu Dakar toujours loolu booy xool tey suñu secrétaire kii séddale liggéey ñi nga xam ñi ci biir ñu ci ëpp ñu ngi ci dans les profondeurs donc SAMES day encourager collègues yi toujours ñuy dem dans les profondeurs pour liggéey fa kooku ñun amuñu problème boobu donc dañuy jàppale aussi ministère à chaque fois ñu jéem a jàppale ministère pour convaincre suñu collègue ñu dem fa tey jii ministère bu la waxoon coono gi ñuy daj pour tuddee benn gynécologue pour Kédougou da nga xam ne procureur bi li mu defoon du du waree fa wala wala wala mu ko doon def waroon na ko fi nga xam ni du ñëw tey jii di di jël benn communiqué di xool li nga xam ne alors que lépp lépp lépp désolé mais du nekk li nga xam ne moom. Hmm. mais euh, ci wàllu médecine ci boppam est-ce que Sénégal amuñu tey jafe-jafe ci wàllu euh, formation de qualité ak recrutement bi ci boppam. gis nga sëñ bi gis nga sànq maa ngi wax journaliste yi sànq dañu naan benn réflexion benn journaliste bi nga xam peut-être ko du ma ko tudd. Hmm. mais li ma wax li ma wax kenn xamul lu mu doon. médecin Sénégal dañuy dem dëkk yu yi ñu bëgg a dem di fa faj. tey jii boo demee France bi nga xam ne ñun ñëpp ku ci feebar France ngay dem ñu ci bëri ñu ñu ci bëri jàpp ne am nañ moyen bu ñu feebaree France ñu dem mais boo dee def ay médecin sénégalais ñi nga xam ne fi lañ defee formation dañuy dem liggéey demuñu defaat benn formation dañuy xëy suba dem dañuy dem liggéey boo jëlee tey jii dëkk yu bëri Maroc Tunisie bi nga xam ne da am nañu fa dem faju seen ay médecin dañu ñëw ko di leen former donc problème bi question formation forcément bien que formation lépp li nga xam ne dañ ko war a améliorer régulièrement di ko mettre à jour di ko améliorer muy benn la deuxième chose mooy santé duñ kese santé nit la structure ak matériel nit ki nag dañ koy fal mais matériel bi ak structure bi kooku état moo ko def bien def na ci ay jéego yu bëri mais li def bëri na lool lool lool lool lool tey jii nii boo demee suñu collègue yu bëri fab bolo ñu Dakar bi yeneen zone ñoo ci yam am na ay bloc opératoire wala ay zones yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci li nga xam ni conditions yi nekkul conditions yi nga xam ni moom moo war pour nit ñi ci liggéey mais nit ñi naam naam parce que boole li am ak amul yëpp di jéem a képp laay kàttan pour améliorer la santé de la de la la santé des des populations donc ñu loolu ñu mën li ci des nag mooy hmm. état bi war na def kéem tolluwaay ko structure yi gën a bëri matériel yi gën a baax foofu nag la baax ak matériel yu baax te loolu état hmm. du médecin personnel moom moo koy def personnel li mën a def mooy laaj moyens yi bu ñëw aussi li nga xam ni du am gàllankoor peut bu baax ci liggéeyam mu mën ci liggéey mais li ñu ko jox da mën a da mën a liggéey nit ki li ngay duggee marché day fekk mooy sa défense ngay duggee marché défense dañ la koy jox. Mhm. donc structure bi ak euh, matériel bi kooku du wareefu SAMES du wareefu médecin du wareefu agent de santé wareefu état donc vraiment war nañ ci def amélioration mais je pense état lañ ci def mais li ci des tamit. xaw naa xaw naa takku loolu. Mhm. yow yaay secrétaire administratif bu SAMES docteur Malick Badiane ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup jërëjëf.